waaw c'est honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly euh, vice commission de loi assemblée nationale euh, ancien membre commission ad hoc ku ne xam na ni tey si suba dama xëyee woon dem section recherche à 17h30 li ko waral nag mooy euh, démb ci guddi à 18h. dañu jël sama oto yi ma yore benn oto boo xamante dañ ko fekk ci euh, corniche bi ci benn parking ñu jël oto bi mi ngi nekk BM série 7 BM série 7 nag ku ne xam na ni seer na seeraay goo xamante ni xëy na am na leneen loo xamante ni jàpp na ni mën nañ koo see wax bi ñu ko jëlee tamit yóbbu yóbbu ko brigade fanaanal foofu oto bi euh, nee na bi koy jël dañoo wax jàpp ni oto bi dañ ko falsifié li nga xam mooy sasi bi euh, ki ko doon jël tamit Euh, woo naa ko téléphone ni ko oto bi sama oto la mais bu mu demee ba si ginnaaw mu ñëwaat euh, neen téléphone ñi nga xam ñooy ay kilifaam ni honorable ko moom muy nan indi oto bi <coughs> après bi ñu oto bi ñu fanaan la ma ñu wax ma ko si guddi ma jóge Touba pour ñëw ku ne xam ne période bi te tey moo nekk dernier euh, délai bi nga xamante ni ci lu ñu war a si li nga xam mooy mandataires yi vraiment muy loo lu mu matt la parce que situation bi am bu doontoon li man naa bay ñëwaat kon dinaa toog foofu noonu kon déposé suñu mandataire yi pour si communes yi ñu wër kon kon nga xam ne fukki commune la ak juróom yi nekk si département bi bi mu xëyee ñëw tamit gis naa commandant bi laaj naa ko lan moo war a sababu ñu indi oto bi mu leeral ma comme ni ma leen wax mu ni ma dañoo am yaakaar defe ni oto bi leerul mu ni ma ana kayit yi ma yëkkati kayit yi wan ko ma ne ko mais commandant day euh, man li ma jàpp mooy oto bi bu fekkonte ni tey Euh, yéen a ngi ko jël bu ne sama oto la même nit bu ko fi gaaree sax war naa mën yóbbu caabi bàyyi fi oto bi parce que lu tax mu bàyyi fi caabi oto bi mu ne ma doog ñoo wóoluwul ma ne ko non yow wóolu naa la yéen gendarmerie mais wóoluwuma seen patron muy Macky Sall parce que euh, moo leen yilif te ku ne xam na nañ dafa am ci looy yëngutu mooy kenn ku ne sa kilif def sa kilifa ngay déglu xam naa ko baax vraiment ñu waxtaan ba ma ko tooñ sax ne ko ñëw naa si bureau joxoo ma café toog tawoo ma te bu doon général Moussa Fall dana ko def ndax moom sama xarit la. bon mais euh, ci gàttal rek mooy jëfaleen bi dafa ñaaw parce que man duma ma ko ndaw si réew mi. aussi fi ma toll tamit cër bi ma Serigne Touba jox ak askan wi jox ma ko muy ñaari cër ma boole ko. Mhm. am na yoo xam ne bu ñu koy def war naa mën a nekk loo xam lu rafet la. mooy oto bi honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly moo ko moom rek automatiquement ñu jël oto bi yóbbu ko foofu. ma ne ko ndax caabi ji yow yaa ko yore woon aussi parce que caabi oto bi bu fekkee yow yaay commandant bu ñu ko téye waroon la ko jox yow nga tëj ko sa koppar wala nga denc ko. Mhm. mu ne moom yoru ko woon yoru fanaanoowul caabi ji. Mhm. ma ne ko d' accord bi ñu paree nag euh, mu jox ma oto bi ne ma nag gisuñ si dara. Mhm. ma ne ko waaw mais gisuñ si dara waaye nag du yombe noonu parce que li tax gisuñ si dara du ma tëb tëb jël oto bi du ko delloo parce que xamuñu guddi gi lan lañ si def si biir oto bi. kon il faut que ñu génnewaat oto bi ñu vérifier waat ma xool ba mu dal sama xel. après ki ko indi woon muy chauffeur bi àndoon ak yéen moom tamit ñu woo ko mu xool oto bi vérifier ko xool ko ba lépp ni ñu ko indi woon mu gisaat loolu mu doog ko def réquisition def déclaration ñu doo ko jox oto bi mu doog a génn mais lu tey tamit may wax opinion nationale internationale ndax damay àgg foo xam ni nit ku nekk da ngay sóoraal lu ñëwagul. Mm-hmm. parce que Macky Sall dafa doy waar doy waar goo xamante ne lu nekk mu ngi koy jéem ak nu mu ko mën di jéemee ndax benn adversaire lañ am ci Sénégal. muy il s'appelle Cheikh Abdou Mbacké Bara ginnaaw bi ma defee sama démission ad bi nga xam ne démission naa ko démb def sama déclaration candidat départemental démb ba léegi Macky Sall nelawul parce que maa ko xañ jàmm waaye lépp lu xew ëllëg ci sama oto ki mooy responsable bi ndax moom laa ko mën a jiñ nee naa ko léegi benn kilifa ma ne ko mu ngi wër di laal rek. mais bis bu ma laa lee xam ne laal na laalaake su boobaa ngoon googu noonu fii la nguuram di jeexe mm-hmm. ndax am na loo xamante ni du ma ko may kenn te parce que bokkuma ak ñeneen ñi réew mi ñoo ko bokk mi ngi ci nguur gi ñu ngi ci opposition bi ñu ngi opposé ñaari at moo ko desee nañu tëgg élection yi njëkk yi si yoon tëgg législatif tëgg présidence du si bokk mu dem ci jàmm mm-hmm. leneen lu mu fi bëgg a def wala mu bëgg maanaam faagaaga ay adversaire yi nga xam jàpp nañ ni ñoom si ñi bopp ñoo ko tee nelaw ñoo ko xañ subaa defee sonal boppam wala mu dugal ci réew mi fitna moo tax may wootee pour ak dal mais tamit ak jàmm si élection yi ñu jëm. Mm-hmm. waaye nag li nga xamante ni maanaam moom a def moom duñ ko d'accord. nga ni euh, sa oto bi ñu ko saisiré dëmb bokk na ci retardement bi nga xam ne moom lañ la bëggoon rek nga bañ a dem Touba. waaw mën ndax tey bu fekkoonte ni tey nekk naa fi ba ngoon peut-être mën naa bañ a déposé sama mandataire mandataire tey sax dama jox sama sëfoor nii mi ngi doon jëm Touba pour déposé. Mm-hmm. te ku ne xam na ni tey heure bi waroon naa fekk de sax ñu déposé mandat ndax. mandataires yi commune yëpp dañu war dem déposer seen mandataire tardement boobu noonu bu mu ñëwutoon tey mën naa déposer mais comme tey jii yàlla dogal na ñëw naa pour récupérer sama oto am na tardement. ndax fi mu ne maa ngi fi tey jii parce que ba 16h 17h du ma dem Touba li ma fanaan yónnee ko pour ñoom ñu déposé ko loolu moo lay wax ne am na tardement boo xamante ni am na si waaye nag en tout cas seen i pexe moom mu ngi am mais yàlla moo la pexe ndax lu mu def ba ngoon jotee dinaa ko xam. Euh, honorable bala ñoo ñëw rek ci élection locale yi ma ñëw ci sa démission ci adop euh, ci assemblée nationale ñu bëggoon a xam rek lan moo waral boobee démission ak lan moo tax nga bàyyi ba démb euh, nga nga nga nga annoncé sa démission. waaw xam nga commission ad boo jëlee règlement intérieur assemblée nationale ci article cinquante deux moom moo ko wax boo demee ba 34 bi moo lay wax ni nga xam ne la ñu koy doxee mooy day wax nii fukki membre la ak benn. wax la opposition bi ñetti membre la ñu am benn bi day nekk ci groupe parlementaire benn bi nekk non inscrit beneen bis des muy juróom-ñett nekk ci ki nga xam mooy groupe majorité hmm. bi ñu dajee ñun nga xamante ni bureau assemblée nationale moo mën a joxe sañ-sañ ndogal pour que maanaam commission daje ñu wax ñun commission loi bi nga xam ne nekk naa ci vice président ñu daje leen pour ngeen def résolution ci commission adopte dèjà résolution boobu sax amul hmm. opposition bi c'est président groupe Serigne Cheikh Bara Dolly mi sama grand frère moom mu tànn ñi nga xamante ñooy toog opposition bi ci liberté démocratie muy man ak Mame Diarra Fam mm-hmm. ma laaj ay président ay miiru ñu groupe parlementaire mënu ñoom pareeguñu dèjà foofu liggéey bi tàmbalee yàqoo te résolution bi nga xam moom la ñu santoon defuñu ko woon foofu kon commission peut-être que taxawoon nañ ko ci loo xamante ni nekkul lu jaar yoon ñu ñëw plénière nga xamante ni tey plénière bi moo doon ñëw pour ratifier liss yi bi ñu ko notifié liste yi automatiquement dañoo jox ndigal plénière jox ñu ndigal ni na ngeen daje bi ñu dajee tamit dañoo samp li nga xam mooy bureau yi ay miiru ñu ngi ni mooy président groupe parlementaire mhm. moom di disandi na boppam pour mu nekk président commission ad hoc ma ne ko comme moom yéen ko moom te maanaam moom euh, euh, li may faral di wax naan képp koo xamante nii yaa ngi euh, jël li nga moom jëlaal li nit moom bu yàggee boo ko lekkee da ngay fër mhm. c'est la première fois le président groupe parlementaire benn boo ko yaakaar parce que di xëccoo président commission ad hoc mhm. xamuñu bon après Mame Diarra Fam ne ko comme jël na ko te moom kii man demal ànd demal nekk vice président commission ad hoc vice présidente bi après ñu jël euh, ki nga xamante ni mooy rapporteur bi muy Sira mu wax ñu ni dana ànd ak bureau bi dem ci Moustapha Niass pour jël li nga xamante ni mooy document bi siis bi yónnee assemblée nationale dèjà loolu defu ko muy benn ba muy dem moom doo nga dem ñu jàpp ñoo mardi bi ñu ñëwee wax dafa génne leetar ci benn enveloppe bu kaki bu mag liir ko diiru cinq minutes ñu baree bari sax xamuñu loon liir hmm. man dégguma tubaab man dama waroon am sama jot mu jox ma ko ñu liiral ma ko ma traduire ko en wolof xam li nga xamoon lu ñu toppee ñi nga xam mooy député yi. loolu mooy yoon ndax tradition am na assemble assemblée mhm. parlementaire yi yaakaar naa même mën na leen di woo ñoom ñuy fekk loolu di ko liiral ñi nga xam ne dégguñu comprendre ñu deful loolu. benn bu bokk ci foofu noonu ci commission bi gisuloo li nga xamante ne maanaam mooy lettre bi da koo liir rek est-ce que xam nga boo xam ne damay liir sax moom la wala moomu du moom. te jàpp naa bu ñu dajee kenn ku nekk waroon na la koo jox mais amee nga xool ko foofu mu liir ko pare jëlaat dugalaat si enveloppe teg daan ni léegi nañ jàpp calendrier alxames dañuy def daje pour déglu député yi ma ne ko noonu mu ni ku ko soxla ñëwul sama bureau ma ne ko noonu parce que ñi bokk si commission bi kenn ku nekk war nga ko am wala nga liir ko wala nga liirlu ko mais lot nga yàkkamti mu ne ñoom dañoo bëgg dem investir dañoo dem investir seen i parti kon mel na ni seen i parti moo leen gën a ñor li nga xamante ni mooy liggéeyu Assemblée nationale ah bi loolu amee jàppante am na fa mën ak moom jàppante am na fa ay saaga jub fa Euh, mais muy loo xamante ni bettuma si moom aussi ndax xam nga président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar boo xam ne c'est la première fois ñuy def section unique assemblée nationale vingt 2022 ñu fàttali la liir sa tur kooku yaakaar naa ni gàcce la ci assemblée. te ku ne xam na ne tey bi ñu ubbi section unique bi dañoo jëpp dañoo tëboon tur ay miiru ñu ngi liiru ko ndax bokkuñu boolewul si liste bi loolu rek doy na defet ñu jàppante fa bon voilà euh, bon bi ma demee ba nga xamante ni xam naa ne kii. parewul pour liggéey parewul pour leeral te mënuma nekk moom si commission comme moom wérul te xam naa ni man am na loo xamante ne mënuma ko c'est préféré man démissionné si commission ad bi comme ni ma ko yoon maye. lan nga gis ba pare ñaareel bi gis naa ni le président vice président comme groupe parlementaire aussi. Mhm. muy ki nga xamante ni mooy Adji Mbargane Kanouté moom te bokk na ci commission bi. président ko groupe parlementaire ak vice président groupe parlementaire yëpp nga jëlee dugal leen ci benn commission ad hoc mel ni yeneen ñi duñu ay nit. moom ci boppam bi mu jëlee kàddu nee na moom bi mu dégloo ni lire dossier bi jàpp na ni dossier bi taqalut ki nga xamante ni mooy biyaay député biyaay moom ki mu taqal mooy député Sall. kon nañu dindi benn balaa nu kiraay député bi bàyyi beneen bi <laughs> mais ma ne loolu mënut a parce que document bi. ñoom ñaa ñëpp la cité. Mhm. kon mënuñu dindi kii di déglu di dindi kii. mais honorable moo tax toujours lenteur di am ci ci. boobee dossier d' autant plus que am na yeneen député yoo xamante ni am na ci luñ leen doon tudd. te yoon dafa gaaw ci mbir mi am na mhm. ñoo xam ne sax prison lañ yëkkatee li nga xamante ni. waaw xam nga loolu rek mooy lay ne dafay am deux fois deux mesures. état bi Sénégal surtout que ak Assemblée nationale lépp loo xam dafa laal si opposé dootu koy gaawal dañ see yàkkamti mais lu laal si ñoom danañu jéem a maanaam vagg-vaggal ak layaam layaam yi ba duñ ko def wala buñ ko def tamit dafay fekk déjà trop ndax dossier bi ban ko waree def yàgg na mais si ñoom la tagee woon bi nee ba nga amuñu pexe ci lañ ko doog bi mais bi nga xam ne jàpp na nag ni ajjuma comme tey jii lañ war a daje ñoom déglu ñaar député yëpp ñaar député yëpp koo xamante ni est-ce kenn kaa ngi si réew wala nekku fi xamoo fu mu nekk nga jëf calendrier automatiquement fi nga toog te contacté woo ñi nga xam ñoom nga war a déglu yaakaar na loolu jaaruwul man nag bi nga xamante ne xam naa ne ñii fi ñu jëm baaxul bëgguma aussi tamit ëllëg ñu dem ba ensemble yi suñuy doom ñëw fi suñu sët ñëw fi ñu ne assemblée nationale treizième législative bi yow Cheikh baa Bara Dolly fekkoon nga fi ñu dindi député mbalaa du kiraay ñaar député tegutoon si yoon nga ànd si loolu man yaakaar naa loolu moo tax euh, ma préféré def li ma règlement intérieur bi démissionné président Moustapha Niasse euh, yónnee na ma lettre accepté sama démission ci ci ci li nga xamante ni mooy commission ad bi bon léegi nag li yoon wax mooy commission mënut liggéey te membre yi matuñu loolu loolu la yoon wax ndax mhm. onze membre la bu benn membre manqué dañoo war a remplacer mhm. remplacement bi amagul est que ñoom dañuy continuer seen liggéey wala duñu continuer seen liggéey kooku ñoom la concerné est-ce que bu ñu defee maanaam seen di seen di seen délibération est-ce que dana valable juridiquement ñan ñi ñi nga xam ñoom la tuumaal ak seen i avocat ñoom ñoo koy xam man daal li ma xam mooy bokkoon naa ci commission bi bokkutuma maa ngi leen di xaar plénière lépp lu ñu indi plénière te du dëgg du yoon dinaa taxaw wax ko ba nga xam ne askan wi dégg nañ ko ndax man askan wi ñoo tax may liggéey askan woowu nag fi nu ma teg ak lin ma defal mënuma leen a fay moo tax mënuma aussi wax leen loo xamante ni du dëgg te mënuma tamit di layaam layaam ko nu gaa yi defe waaw comme sàggante am na ci dossier bi déjà ñu ngi ci investiture yaakaar nga ni dossier bi mun na am poursuite. ah oui war na mën na am poursuite parce que li tax mooy xam nga bit si Sénégal moo ëpp solo dossier bi te bit Sénégal cinq mille cinq cent milliards ba tey fi may wax ko. te heure bi daan fekk ñu war koo càmbar lu ko war a mooy investisseur moo ko war a mooy politique bi. kon mhm. politique moo ëpp doole li nga xamante ni maanaam mooy liggéey bi loolu ay caaxaan la fi nga xamante ni bi ñu defee ubbi ak section unique bi rek automatiquement da waroon jàpp calendrier pour defal maanaam commission yi pour jéem a càmbar budget bi mais dafa nekk retard voilà. waaw xanaa ñu tëjee ko ak local yi nga xamante ni moom la ñu jëm surtout localité bi nga xam ne ba nga nekk est-ce jàpp nga ni euh, pare ngeen pour jël li nga xamante ni moom mooy. <laughs> moom foofu moom ku may bëreel nekku fa ña fa nekk ñëpp maa leen man ah. du ma seen morom. parce que Macky xam na ne du ma seen morom ndax démb rek Macky nelawul bu ñu yëgee ni candidat ci déposé candidat ci liste quoi bokk gis-gis. ko war sens bokk gis-gis bi président Pape Diop jiite. ndax ku ne xam na ne amoon na coalition boo xam ni tëggoon nañ ko muy wàllu Sénégal. Hmm. coalition wàllu Sénégal ba man mi maa joxe turu coalition wàllu Sénégal man maa ko joxe. ndax dama bokk commission boo xam ne communication. parti bu nekk yónni fa yoo yebal fa ñaar nit man ñu boole ma si ñan yebaloon foofu kenn ku nekk parti bu ne ba nga ñëwee ña nga fa yebal ñoom ñu proposé mais tur bi ma joxe tur boobu lan accepté kon man maa jur doom ji doom ji nag ba ma ko juree ba mu nekk taaru ban ngéntu ko ba mu defee ne dañuy dem pour ñu war koo maye ay nit taxaw pour sa intérêt ba pour ay doom jooju noonu kooku du ko d'accord loolu moo waral bi nga xamante ni tey ànd bi amoon na yéene mu baax sëñ mun taxaw waxoon na si ñaanoon si màggal gi mais dafa may yoo xam ne dañoo taxaw seen ngir seen intérêt propre bopp ak seen parti te coalition dafay am ñoo xamante ni da koy def pour que yow nga jéem a gagner pour lu neex population bi tas am na waa PDS dem nañu ñoom ñen war a àndal xaw ma ñun doon sax man xaw ma sax seen tur PDS laa si xam nee na dañuy gàdd seen yiw yi mais yiw bu maako moom moom wàllu bi nee dañuy gàdd wàllu mais wàllu moom sama sa sama wàllu la léegi nag au lieu que wàllu maanaam Sénégal gi ma waxoon wàllu Sénégal gi ma waxoon ñoom xam naa duñ koy def wàllu PDS wala wàllu keneen waaye man wàllu gi moom man sama wàllu la léegi nag comme man dama daa wàllu Sénégal di wàllu askan wi tuubaa moo tax que maanaam ma jël suru wàllu bi dugal ko si bokk gis-gis ndax man rek maa doon nekk koo xam ni depuis ban falee ba tey maa ngi ci population bi di leen waxal heure bu ñu soxlaa Touba man la ñuy gis maa man la gis mbënn mi man lañ gis si mbas mi man lañ gis li may défendre population boobu te man donc nekkuma fa député kon yeneen député yi bu ñu nekkee tey candidat soxla comme man yaakaar naa population Touba daan xam tey pour nax leen ak ki ñëw pour bëgg am li am pour gën a dolli da nga xam moom la doon dimbale ndax fi ñu jëm du liste PDS maanaam en tant que PDS non Ablaye Wade du moom Ablaye Wade ñëwul tey ñëwul ëllëg du Ablaye Wade mooy ñëw fi naan faleen maire wala faleen département bi population ba fa dëkk ak ka leen ñor ak ka leen di jàppale loolu mooy li ci am solo te man fa ma dëkk la ma fa def jàppale ko population bi ñi ma àndal jàpp naa ne amu fa kenn koo xam ne def nga toll noonu moo tax ña nga xamante ne dañoo bokkoon si yeneen parti yëpp te frustré wu maa ngi leen tàllal loxo pour ñu ñëw man ci li nga xamante ne mooy boo bokk gis-gis bi nga xamante ni tey la ñuy suñu li nga xamante ne mooy suñu mandataires yi après incha allah pour que préparer la si fii le 3 ñooñu déposé mboolem commune yi ak département bi nga xam naa ko jiite incha allah pour fexe concourir pour gagner incha allah. xam naa waxtaan wi ci affaire ablaay Wade lañ koy tëjee dégg nañu ni war na fi ñëw pour mun a jàppale ay ay ñoñom pour mën a jël mairie de yow lan nga gis par rapport ak Abdoulaye Wade ñëw di daal campagne pour nekk maire de Dakar. man daa loolu la ma si wax mooy dama koy ñaaw di ko naqalu tey wax nag fii lu wér di ko di lancer appel président Macky Sall Abdoulaye Wade institution la. Mhm. ancien président de la république ñii bu ñu ko fay di ko këll Ablaye waat nañu ko bàyyi mu toog noppalu nit boo yërëmee sa baay da nga koy demal ay tool wala nga di ko yóbbu ndox. ñàkk jom mun a paase dem nga ba mënoo gañe fenn nga bëgg a wooy Ablaye Wade mu ñëw toog pour àndaat ak yow kooku d'accord ma si. Karim waat tamit war naa xool ñi këll këlee baayam xam ne bu doon seen baay la duñ ko def ndax ku sa baay am 80 ans doo ko bàyyi muy dox leneen de. bis bu ñu indee Ablaye Wade fii muy campagne ba dal ko dinaa porte plainte PDS loolu leen wër parce que du ma ko d' accord ndax Abdoulaye Wade c'est une institution te sama baay la dañu ko war a yërëm dañu ko war a sàmm dañu ko war a aar waaye di ko indi fii si naaj wu tàng wi naan ay simple conseil simple maire kooku si accepter lu ko dal dinaa porte plainte PDS parce que ñoom ñoo leen ko ñoom ñoo ko teg